عليك صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاشق فيك واميق biñ ko ñàkk ñu ngi dund dina jaa ngi dox tarika baa ngi dox lépp a ngi yokk su ñëwaatoon tey dana xam ne ne ñim fi bàyyi gannaawam ay góor leen ñu juddu sax gannaawam sax ay góor leen waaye di bëgg a wax ak yéen ci li nga xam ne ni xew na fii ni ki démb muy Mohammed Abdul Aziz mi nga xamante ne ni yàlla jëlee na fi bakkanam Amérique la juddoo naam waaye fii la màggee fii la defee léppam ba fii ñëw sax at amagu ko fii la dalee daara moom ak samay rak Mohammed Munir Cissé Mohammed Nadir Cissé ba Mubashir Cissé sama jarbaat Seydi Ali Cissé ak Hassan Cissé di doom ci suñu jigéen Adja bu Cissé ñooñu ñoo nekkoon moromam ñooñu ñooy àndandooram guddeeg bëccëg ñoom la doon nekk ndawam yëpp ñoom la ko def ba ci ay photo souvenir am sax ñooñu la ko bokk mu nekk nit koo xamante ne ni yàlla def ci moom ay qualité yoo xamante ni jafe na ci américain mu amee qualité yu mel noonu ba muy nekk lu ndaw ci la bëgg lu kawe maa ngi fàttaliku 2001 bañ àndeeg moom ànd ak imam radiallahu anhu dem Amérique ci ab tukkeem ci Mauritanie imam du lekk mukk lu oowu ko ñu teg ko ci wetam parce que moom daf daan wax ne man taytal yi ñuy oree nit ñi fii ci kilifa yi réew mi moom xalifa moo ko ci gën a neex parce que xalifa moom leen jiital bàyyi ko ci lépp mu jigi imam naan ko Mouhamed xalifa ana Mouhamed xalifa wala ana xalifa indi ko teg ko ci wetam daan ko su daan waxtaan ak moom muy reetaan ak moom ndeysaan nga gis ne xale bi lu tax mag ñi bëgg ko am na lu mu gis ci moom nga gis ko ba muy mat jël ay jikko sax fekk na imaam dam na waaye nga gis ne ba muy jéem lu baax it mën nga méngale ay jëfam ci jëfi imaam ni imaam daan tasaare alalam baax bëgg nit di la jëriñ mel ni yaa koy jëriñ Muhammad noonu la meloon su daan dox fii ci mbedd mi xale bu ko gis da koy taxawal parce que soo ko taxawalee mu jëriñ la imaam ba muy dund dundam noonu la woon fu otoom yëngatuwaan rek xale yi ñu ngi ci topp di dang dangi kër sëriñ bu mu dem ziyaara ji fii rek xale yi koñ ba yëpp daneen génn wër ko ngir teraanga jëm daan teralee xale yi xale yi amoon ci moom cër mag ñi am ci moom cër Muhammad tamit dafa jël jikko boobu doon na ko ci Cheikh Hassan si radiyallahu anhu te damay wax toujours ne imaam jamono ba mu fi indi américain nga xam ne bis boobu ak tey ma nga ko natt ci 38 ans 37 ans boobu ba léegi mosuñ fee rey américain américain mosu fee rey mu ngi fi soog a xew waaye yàlla bu mu fi xewati te ñu ngi ñaan autorité réew mi ñu taxawaat bu baax pour sécurité askan bi surtout étranger yi nga xamante ne ñu ngi ñëw ci réew mi ku xam États-Unis nu mel nga xam ne lépp luy bànneexi àdduna mën fa suñ ko bàyyee foofu ñëw fii nga xam ne kon yàlla jaral na leen ñu ñëw fii kon suñ fi ñëwee dañu war a mucc seen diina ak seen wér gi yaram ak seen lépp moo tax ñu bàyyi Amérique ñëw fii Abdou Aziz dundam yëpp fii la ko defee Mouhamed am na 22 ans ci tey te bàyyam ba muy ñëw fii jiitu na juddam ay ati at ba ñu gorowante ak moom am na ab sëtam boo xam ne tey Imam Hassan mooy maamam taawam bu jigéen di suñ soxna suñ mbokk Mouhamed Youssouf Cissé doon ko denc mu jural ko taawam muy Seyda Fatima Zahra Cissé Abdou Aziz mii mooy maamam nga xam ne kon lii yàgg na te àndoo ci yàlla rek moo mën a maye loolu américain yi jamono bu njëkk ba dañ daan ñëw ak seen banditisme ak seen lépp ñëw fii ba mujj gi ñooy mujj di e imam fajar imam doon leen bàyyi xel wutaloo leen jigéen yi leen di toppatoo ci seen i lekk ak seen i yëpp ba nga xam ne ni maa ngi fàttaliku suñu demaan lycée fii nii wala Georgia daan am ak problème ak foofu ci wàllu basket ba ñu daan defoo mujj gi imam pour regle problème boobu daf leen a mujj defaral fii ci daara ji basketteur ba nga xamante ne nii terrain basket ba nga xamante ne nii daneen mën a bañ a dem fële pour fitna yi daan tàkk seen diggante ak Sénégalais yi ñu daan dajee foofu bu mu amati te loolu yëpp bëggal leen jàmm bëgg leen a tabax ci seen diina mu mat ba li nga xam ne sax mooy sport nga xam ne dafa bokk sax ci diina ji ndaw lu nekk war naa am lu muy yëngatu war ngaa jàng waaye war ngaa yëngatu ci ab métier boo xam ne sa yaram dana ci yëngatoo pour ndax li ngay jàng mën a jëriñ ci sa jëmm ji parce que wax ne xam du dugg ci jëmm ju wérut kon dèjà jëmm dafa war a wér moo xam sport boo mën a def rek actif boo mën a def pour yëngal sa yaram ba pare mën a récupérer xam-xam pour mën a jëriñaate ëllëg tey jii soo demee Amérique ñu doon def loolu tey ay ilimaan leen ay kilifa leen foofu ci seen dëkk yee la mu bëggoon ci ñoom am na kii moom mën ngaa wax doomi réew mi la 100 pour cent li la koy xamal sax mooy ne problème bi dafa dugg ci kër ku nekk mel ni kii sa kër la yëf yi xewee ku nekk di ko estati ñi ko xam ak ñi ko xamut ak waa réew mi waa bitim réew ñëpp suñ kuñ ci nettali mbaaxam rek ngay gis sax keroog sax am na benn vidéo mu ngi nettali naan moom cere su ko xoolee dana xam ndax bii am na mboq wala dugub kese leen ko toggee loolu yëpp bëgg culture senegal bëgg sénégalais bëgg mbiri Sénégal bëgg mbiri bàyyi bëgg njub bi fi nekk mbaax bi fi nekk mu jaral ko ñu bàyyi seen lépp fële ñëw fii nii bali lii dal ko fii lii la yàlla tuddoon ñu ngi wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di ñaan yàlla yàlla mottalee ndawam fële ci aljana yi gën a kawe ci ron Seydina Ibrahima alayhi yàlla barkeel ay mbokkam yi des yàlla may leen fan yu gudd ba xam ne lii kilifa yi gisoon ci Muhammad bi bëgg ko yàlla mottalee ko ci ay mbokkam yu góor muy Aboubacar Siddiq ak mbokkam mu jigéen mi ak ñaari mbokkam yu jigéen ñi muy Sayda Fatma Zahra ak Sayda Shakura ak seen yaay seen baay tamit yàlla yëkkatiwaat ko delloo ko ci anam weer wér. Muhammad daal ndaw loo xam ne ci jaamu yàlla soso foto mi nga gis sax nga gis ko moom ak baayam ñu ngi ànd dem ci jumaa ji wala mu ngi ànd ak xale dëkk bi dem ci jumaa ji mbaaxam ku nekk mën koo wax ci dëkk bi ñu ngi wax daal euh, lii yàlla nañu yàlla musal ci musiba bii nii te ñu ngi wax ne ñi amee wàllu santé ni ki hôpital nen taxawaat bàyyi seen xel ci lii bu baax yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafay wax ne man raa minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dalika adaafu l iman soo gisee loo xam ne sib nga ko na nga ko soppi ci sa doole ci sa làmmiñ mooy yoxi boroom xam-xam soo ko mënul ci sa làmmiñ ak ci sa doole nga teeku ci sa xol kon nag ñu ngi koy wax te ñu ngi wax ak ñi nga xam ne ñoom la yàlla teg loolu ci seeni loxo neen góorgóorluwaat bu baax hôpital ku fa nekk danga war a am mànde ba nga xam ne sax malaat bi su ñëwee gis la nan ko ko accueillir sax mën naa xool ci xar kanam yooyu rek wér wala lam doon tiit ci boppam sax doo kii waaye ñëw tiim la ngay reetaan lii ba muy xew man damaa julli fajar pare gis gendarmerie ci dëkk bi ma laajte lu xew ñu ne gendarmerie waxtu bu ko gisee rek mooy ne crime moo koy tax a yëngu su fekkoon na sàcc kese la police mooy yëngu ci noonu sama benn mbokk boo xam ne mu ngi am soxna foofu ma oo ko ne ko oo oh, oh, ooteel sa kër goro laajte lan moo fa xew am na benn xale bu ma gis ñu ko ci oto gendarmerie di ko yóbbu lan moo xew mu oowaat ma ne ma eh, kër Abdou Aziz leen dugg doon fa agressé ma jàpp ne agressé jël alal nit dam dam sa yoon la loolu sëtteel la ma tëdd nalaw ba ma yeewoo midi gis vidéo yeeg photo yi ma tiit jug ba ma jugee dem buntu kër Imaam Cheikh otoom laa dugg dem hôpital ba ma demee hôpital moom ngi jugee Dakar direct yegg si fi heure tisbaar ba ma duggee otoom dam hôpital bala ma faa génn rek moom it oto ba mu duggaloon boppam sax moom la o docteur Ahmed ki nga ne moo daan amee mbiri imam Hassan Cissé oo ku ne ko na dem xool xale bi ci lu mu nekk su fekkee mën nañ ko dimbalee yóbbu ko dakaar yóbbu ko gaaw sa fekk Ahmed ba mu ñëw sa fekk na xale bi boobu yàlla moom na ko Ahmed muy ñëw sax bu fekkee ne yàlla moom na xale bi def na lu ko neex parce que man xale bi ba muy mujj nekk di yëngu-yëngu yu métti di jug di toog maa ngi gis docteur yi ko ay jigéen leen xale yi néew doole ñu ngi koy daw di anyeer naan malade bi dafa bëri doole malade bi kaza malade ana ana ana góor yi ba Baye Muxtaar mu ngi leen wax ne ana piqûre yi ngeen di piqûre nit ñi ñu ñu dal doo leen ko piqûre ñu ne piqûre boobu dafa nekk rupture bañ ko jëlee foofu ñu ne ñu ngi ko yóbbu bolog mooy vidéo boobu ngeen gis noonu ñu ngi koy pousse noonu di ko yóbbu ba 15 minutes après loolu ñu indiwaat ko benn xale saaliw kii jaay ci bitig bi nga xam ne xaritam la daan na ñëw fii lu bëri saaliw di daanu di jooy ñu naan ko lan la docteur kenn ci ñoom ñoo ne ko du dara dañ ko nalawal lu tax da ngeen ko nalaw parce que laajoon ne ndax piqûre ngeen piqûre daf nekk rupture kon nalawoo leen ko tekk boobu mu ne tekk moo ne dee na oh. parce que Salman taalibe Cheikh Mahi Cissé moo ne bañ génnee bañ ko génnee bloc euh, bañ génnee lu ticket bi liñ ci bind non active mu ne ci la xam ne kon kii àndut ak bakkanam bañ ko jëlee teg ko dugalaat ko ci biir di bës dënd beeg indi seen machine yi tic tac yi sama maamu ne ma lii yëpp affaire formalité la rek kii dee naa pare fi mu mujj fi ñun fii heures la war a fii ak 3 heures waaye fi mu mujj rek baat bi ma lay wax dee na waaye lu mën ci xew yàlla nii la tuddee woon nii la fi desee waaye suñ ci gënoon a rafetal doon nañu neex lool. waaw mu mel ni am na ñuy wax ne sax biñ ko yóbbu ci hôpital bi nekkul ne dafa yegg rek ñu jël ko en charge. dëgg la parce que déggoo li ma la wax 6 heures du matin ba damaa nalaw. man nalaw naa 5 heures de temps ou 6 heures ba ma yeewoo fekkuma ci moom dara lu ñaw ñaw yooyu. yow ku ñëw ak cas mel noonu kooku da war a fekk nit sax waru koo gis heure boobu sax da ngaa war a fekk mu ngi ci jàmm mu ngi nokk ci jàmm ñu ngi ko teg lu ñu ngi koy toppatoo toppatoo yu baax ba heure boobu sax Baye Muxtaar ci la yaramam daw sax ba mu yërëm booy bi ngir mbaaxam mu ne xaaral ma appel daf appel ambassade amérique wax leen li seen doom ji di jooy fii nii ñu def pexe pour ñëw dimbale ko hmm. heure boobu juste ci la yàlla di moom xale bi mu nekk lu métti lool loo xam ne neexut a wax. mu mel ni famille bi kon famille Cissé Cissé rawatina njabootu imaam Assane mbir mi métti na leen. métti na leen lool foo ko mënti rek métti na parce que ñii imaam dafa am fu mu leen tegoon fonk leen lool bëggal leen jàmm am na bu fi mas fii Abdou hmm. keroog camion moo jaar ci tànkam yi imaam lu nekk lim njëkk a def mooy jël nag rey ko tër ko saraxe ko. Hmm. continuer di rey ay xarak lu nekk génnee ay dund di saraxe pour jot bakkanam taxaw ko ci hôpital yi fii bañ ci paree ñu yóbbu ko Dakar bañ paree yóbbu ko Amérique direct alhamdulilah dundaan na ba am soxna ba ba ba ba ba am njaboot loolu la bëggoon ci ñoom kii yàlla tudd na de waaye ñàkk a toppatoo bokk na ci li ko fi desal kii soo demee ci kër nga gis lam sotti ci deret nga xam ne kii deret ji nit waru koo génnee ñu ñu ko di ko tëral noonu waaw waaye ñu wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun dee dund ànd nii la ko yàlla tuddee woon yàlla na fi am yal na yàlla defal jàmm Sénégal yal na yàlla defal jàmm Kaolack allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim alayka salatullahi thumma salamu fa